بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم suñu borom mu ni iza shamsu kuwirat jant bi de bis buñ ko laxasee lem ko wa iza nujumun kadarat biddiw yi ñu nekk fay leen tasaare leen wa iza aljibaalu suyirat montagne yi ñu doxal leen wa iza alishaaru utilat giléem yi ëmboon ba yegg seen fukkeelu weer ñu boyal leen fàtte leen wa ida al wuxuush xushirat bis ba nga xamee ne mboolem njaa àll ya daan dund ci àll dajale nañu leen wa ida al bihaaru sujjirat bis ba nga xamee ne géej ya taal nañu leen wa ida al nufuusu zuwijat bis ba nga xamee ne bakkan ya lënkale nañ leen boole leen wa ida al mawuudatu suilat bis ba nga xamee ne nii kañ suuloon ba muy nekk xale laaj nañ ko bi ay zambin qutilat ana ci ban bakkaar la defoon bañ rey ko wa ida suhufu nushirat bu bis ba nga xam ne nii lii di kayiti jëf ya téere yi jëf ya dees na ko tasaare wa ida samaau kushitat bis bi nga xamee ne nii asamaan dees na ko ñori wa ida aljahimu suirat suirat bis bi nga xam ne safir safara jahannam des na ko alimenté mu laa di nekk safara bi tàkk di sair wa isal jannatu uzlifat bis bi nga xamee ne nii ajjana des na ko jegale wa mi ngi noonu uzlifat alimat nafsu ma ahdarat keroog la doomu aadama di xam lan la teewal bis pénc mi ngi noonu bokk suñu boroom mi ngi giñi fii ci fukki giñ ak ñaar juróom benn ngiñ ya ci àdduna lay am juróom benn ngiñ ya ca des allaaxira lay am li mu jëkk a waat mooy ci jant bi nga xam ne ëpp na suñu suuf si un million de fois mu ngi noonu un million de fois bal un million trois cent mille fois ëpp na ko suñu suuf si di ab taal bu yàlla taal suñu borom nee na yowmal qiyaama dañ koy lem laxas ko te it sax na ci hadisul buxaari ne suñu borom sawara la koy sànni su ko defee ñu cay mbugal waa sawara bu sawara amul woon lu dul jant kese mu doy sëkk wallahi borom boobu subhanahu wa taala ne biddiyu ko asamaan yi it lépp dañ ko fay wàcc leen montagne yi ñu doxal leen bu ko defee lépp nekk pënd mi ngi noonu giléem yi am ëmb ba am fukki weer moom la arab gënoon a fonk ci lu mu am suñu borom nee na keroog bi bisi penc di tàmbali doomu aadama yi dañ fàtte seen giléem yooyu ottilat dañ koy boyal borom bi ne li nga xamee ni moom mooy jur yi mooy bàyyi ma yi nekk ci àll bi yowmal qiyaama dañ leen dajale te suñu borom subhanahu wa taala mu ne summa ila rabbihim yusharoon wa ma min daabatin fi l ard wala taa'irun yatiru bi janaahayhi illa umamun amsalukum ma faratna fi lkitaabi min cheyin summa ila rabbihim yusharoon suñu borom nee na lépp luy dox lépp luy naaw ay communauté lañu comme yéen doomu aadama yi am na ca ñu baax am ca ñu bon danaa leen dajale yowmal qiyaama àtte leen gannaaw ba ñoom ñu delloo leen ñu nekk poussière comme nañ ko jànge woon démb suñ borom yàlla subhanahu wa taala ni bu keroogee day yàlla dana taal géej yi te yomal xiyaama mbokk géej yépp sawara lay doon te wax naa leen géej mu ngi ci kaw suuf ca la nga xam ne mooy suuf lépp la ko féete suuf buuru sawara la ca la ko suñu borom di exploser géej yépp di takk li nga noonu ñu taal leen borom boobu subhanahu wa taala ni keroog la ñuy dajale bakkan yi ña baax yàlla boole leen ña bon yàlla boole leen génne sappe ñu baax ña génne sappe ñu bon ña ñee jaar ndeyjoor ñee jaar càmmooñ suñu borom nee na dana laaj xale yi ñuy suuloon ban fët lañ def bañ suul leen ca mbokk xam ngeen arab yi amoon nañ aada bu bon aada boobu mooy ku ci masaan am njaboot da ngay jàpp ni man kat maa ngi am ñetti doom ak am jafe-jafe bu mu leen dundale léegi beneen doom bu juddu da ngay dem gas rek suul ñu noonu gas rek suul am na ci ñoo xam ne ni it doom yu jigéen lañ bañoon buy doom yu góor moom bu dee fukk sax baax na mais doom bu jigéen moom nee nañ gàcce la leen di fekk dañuy dem rek suul ñu ngi noonu borom bi nag ne yowmal qiyaama xale yooyu ñu suuloon dañ leen laaj ban bàkkaar lañ defoon ba ñu suulee te loolu it mbokk yaakaar naa ne yéen ñëpp xam ngeen yàllaa nga ci jublu way jur yi leen suuloon mi ngi noonu ca itamit mu am beneen problème boo xam ne tamit day am ci suñ jamono yi tey mooy li ñuy tuddee avortement mbokk avortement xam leen ne am na ca luñ ca sib mooy bépp avortement boo xam ne amagul quatre mois bu dee ne benn loru amul loolee xam nañ ne sip nañu doomu aadama di ko jëndi waaye ngallaawaay yow ndawal jurit xamal ne bépp ëmb bu am quatre mois yàlla subhanahu wa taala def la ci ak ruux képp ku ko rey nit la rey ku ko rey nit la rey su ko defee loolu ñu bàyyi ci xel bu baax bépp ëmb bu am quatre mois. kenn amul droit di ko yàq lu dul ñu ragal ne moom ci boppam mën naa rey ndeyam su demee ba médecin yu ragal yàlla xam ne ëmb bii kat bu continuer ci ndaw si bakkanam xaj na ci su boobaa même bu doon neuf mois it dañu naan lii nga xam ne ak dundam wóor na duñ ko jëndeeg lu dundam wóoragul waaye mbokk bu dul loolu ngal la waay nañ ci bàyyi xel bu baax des fois rawatina réewu Europe yi da ngay gis koo xam ne dañ naan la sa doom bi dafa am anomalie kii bu juddoo nii lay mel nii lay mel fokk nga rey ko gis naa ci benn couple boo xam ne bu ma jege la ba leen yàlla nattoo loolu ñu woo ma di ma laaj sama xalaat ma ne leen day suñu borom moo bind ay jaamam ñii mu matal leen ñii mu mankil leen nattoo ko ay jaamam maadaama yàlla nattoo na leen muñu leen ko wallahi loolu occasion jaamu yàlla la na am naka médecin yi waxee noonu la demee xale bi bu juddoo juddoo na ak i anomalie waaye loolu nga muñ jàpp ko yar ko ca yàlla tax ca yàlla tax mu dox gaa yi nagam doom normal moo la mën a jural ajjana doom bu am ay défaut nga muñ ko yar ko ci yàlla tax du la jural ajjana am déet ah kay du la jural ajjana looloo tax seen doom boobu yal na ko yàlla barkeel waaye itamit yal na yàlla barkeelal bépp jullit bu yàlla nattoo mu am doom yu mel noonu yàlla mën na la nattoo doomu mongol nga xam ne àndul ak xelam yàlla nattoo la doomu silmaxa yàlla nattoo la doomu kaza doomu kaza waaye mbokk jullit suñu borom yàlla subhanahu wa taala mooy wàcce yërmandeem ku ko neex di ko jaarale fu mu ko neexee mën na am doom boobu nga xam ne bëggoo ko sa texe àdduna sax ci la aju waxumaa nag sa texe àllaaxira kon nañ moytu loolu suñu borom buy laajit xale yu ndaw yañ reyoon laa shakk ne bépp mag bu ñu reyit yàlla dana la dajale kala reyoon daa dina waa yow loo defoon ba kii rey la loolu it képp koy rey nit war ngaa waajal looy tontu sa borom bis bu ñu la laajee loolu dañ xam ne mbokk jullit jullit kenn du ko rey lu dul ci ñetti mbir moom ci boppam moo rey ca moo ko tey walla boog moom mu masoona sëy ba pare wëlbatu ko njaaloo walla boog mu génn ci diine yàlla ci ñëw waar ko mu bañ ñett yi rek moo tax ñuy rey jullit leneen lu dul loolu kenn du ca rey jullit borom boobu nag subhanahu wa taala mu ni fàttalikul bis bi nga xam ne daañ tasaare téere yi ñii jote ko ndeyjoor ñii jote ko càmmooñ fàttalikul bis bi nga xam ne asamaan dañ koy ñori biddiw amatul weer amatul jant amatul fàttalikul bis bi ñuy actionné sawara taal la nga xam ne mooy chaudière ya taal la nga xam ne mooy takk-takk ya fàttalikul bis bi ñuy jegeel aljanna mu daal di jege si la nga xam ne moom mooy julit ñi suñu borom nee na keroog day la doomu aadama di xam nan la teewal bis pénc mbokk suñu borom def na ci kumpa kenn ci ñun xamul lan nga teewal bis pénc bari na mbokk benn waay booy gis yow mi jàng xam nga ne kii li muy def yépp ay biddaal ak ay xuraafaat ca moom jàpp ñu ne ñi ngi ci jaamu yàlla yi gën a kawe di ñaan yàlla rey ko ci am déet benn waay boo xam ne créé na ab yeneen tam bu bees masalan benn waay boo xam ne julli du woor masalan mais jàpp nañu ne jaamu yàlla yooyu ci yi gën a kawe lu leen di jege seen seen seen borom la mi ngi noonu loolu kon muy wane ne doomu aadama bi tamit yaa ngi jëf war ngay tiit ba baa ngay dajeeg sa borom ba nga say résultat feeñ booy bàkku ngay doog a bàkku booy dég bég ngay doog a bég waaye avant loolu doomu aadama tiit ak yaakaar nga war a saxal sa xol ba baa résultat boobu di génn yàlla na doon résultat bu ñuy bégal nañu
فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين فما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين فما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يتقين وما تشاءون إلا أن يشاء الله فما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين jazakallahu xayra suñu borom mu ni fa xaw a daxas saale man asma waaw fala uqsimu mooy maa ngi waat fala déedéet uqsimu bil xunnas maa ngi waat ca la në ca lay nëbbu aljawaar di aji daw alkunnas di laqwaat wallayli ida asas ak suba ak guddi ga jamono ba muy dëtmal wa di ñëw doonte ne asas ñu ne arab dana ko firi luy ñëw dana ko firi it lu wala gannaaw wa subaxi ida tanaffas ak suba ga jamono ba muy noyyi ay jamono ba muy feeñ di fekk di di di fekk innahu la qawlu rasulin karim ñi ngi leen di waatal ci ne wax jii day waxi yonente bu tedd la zi quwa di borom kattan te mi ngi ci namu jibril inda zil arsh nekk ca borom arsh ja makiin du kuñ fa jox place mutain di koo xam ne ku ñuy topp la malaaka ya di ko topp summa amin mu doon koo xam ne ku wóor la amma amma yéen waa makka wa ma saahibukum bi majnun seen waa ji di yonente yàlla bi day nekkul ab dof wa laqad ra'aahu bil ufuqi al mubin doonte ne gisoon na ay jibril ca gox ya ci gisin boo xam ne gisin bu leer la wa ma huwa ala al ghaybi bi damin moom day nekkul ci kumpa gi di aji ku koy nay di ko denc wa ma huwa bi qawli shaytaani rajim wax jii day nekkul waxi shaytaani joo xam ne dañ koo dàq jam ko fa ayna tadhabuun ma ana fan ngeen jëm in huwa illa zikrun lil alamin lii du dara lu dul fàttali ñeen bindaafan yi liman shaa minkum an yastaqim ñeel ku mu soob ci yéen mu daal di jub wa ma tashaa'uuna illa an yashaa allahu rabbul alamin du leen soob nag lu dul dafa soob yàlla mi nga xam ne mooy borom bindaafan yi mi ngi noonu mbokk suñu borom mu ne mi ngi waat ca ya nga xam ne dafa nëbbu di daw di nëbbu waat loole ñu ngi ci jublu lépp loo xam ne day fekk ci kaw asamaan biddiw la jant la weer la masalan tey jii biddiw yaa ngi nii nëbbu gisuñu leen bu ci kanamee bu timis jotee rek ñu fekk buñ demee ba fajar paase ñu nëbbuwaat jant bi da ngay gis ne fa ngay jullee fajar gisoo ko gannaaw ba lay génn bu dawee nëbbuwaat moo tax alxunnas yaa ngi ñaan seytaane mi ngi noonu qul a'udhu bi rabbi nas maliki nas min sharri alwaswasi alxannas seytaane day jaxase sa xol boo tuddee yàlla mu nëbbatu mi ngi noonu amma kunnas loolu dañ koy wax ci laquwaay yi nga xam ne bàyyi may dañ cay nëbbu di laqu ala kulli xaal muy wane kawti fi borom bi subhanahu wa taala ci rotation boobu nga xam am ne day am rawatina suñu suuf si jant bi mbokk penk bi lay génne buy soo fii la ñuy gis mu sowee suñu gannaaw bu xëyee ñu gisaat ko fii lan moo waral loolu ñu noonu di kawtiif ñu ngi noonu te suñu borom yàlla mooy kii wëlbati suufam ba yow ngay gis jant bi di def loolu amma bu deente ne ku xamul yow da nga jàpp xalaat jant bi daa dem jaar ci biir suuf génnaat génne nii allah mi ngi noonu loolu kawteefu yàlla la borom boobu nag ne mi ngi waat ci guddi ci jamono bi nga xam ne mi ngi tàllalu mi ngi noonu isa waqaba te loolu di kawteef jant baa ngi feeñ bu mujj rek nga gis lëndëm gi ñëw bu mujj fépp lëndëm waaye gannaaw lëndëm googu yi suba jot rek jant bi daal di fekk fajar xarab leer ga commencé waat di jël place su lëndëm bi ni lëndëm bi doon tàllaloo ba mat leer gi commencé fekk di tàllaloo moom it ba mat sëkk yoor yoor ngay gis lépp muy ñaari extrémité yoo xam ne suñu borom mi ngi ñuy wax bu ma ci saxaloon benn ni ngeen di def bu doon guddi laa saxal ba ila yawmil qiyaama ku mën a indi bëccëg bu doon bëccëg laa saxal ba yawmal qiyaama ku mën a indi indi guddi mi ngi noonu borom bi nag li muy wàcc li lépp mu ne xam leen ne day alxuraan ji yéen waa màkk ngeen naan waxi jinne la waxi seytaane la du dara lu dul waxi ab yonent yonent boo xam ni suñu boroom tagg na ko juróomi tagg muy jibril alayhi salaam tagg bu njëkk bi nee na karim la jibril ku tedd la ñu ngi noonu te suñu borom yàlla bind na ko bindin boo xam ni mi ngi koy tudda feneen zumirra borom taar ba ca mi ngi noonu malaaka yi ñoo gën a tedd ci mbindaafanu yàlla yi ci seen mbooloo donte ne ixtilaaf am na te ña baax ci jullit ña donte ne lañ ci gën a yaakaar mooy ñi baax ci jullit ñi ñooy gën a tedd malaaka ya mu yonent yi ak ñu mel na ñoom kon ko tedd la muy jibril di benn ngoog suñu borom yàlla ne borom kattan la di quwwa ndax malaaka yeneen yi suñu borom nee na am na ñu am ñaari laaf am ñu am ñett am ñeent jibril juróom benn téeméeri laaf la ko yàlla may ca laaf bu mu ci tàllal day jóge penk ba sow moo keroog ba muy déq ci région xawma luut da koo yëkkati ba ci ko dëpp ko kooku mooy borom kattan loolu nga xam ni suñu borom ma ko tagg bëggoon jullit ñi màggal ko safaanoog benn waay bi bàyyum duufal ba mu duuf mu taxaw ci mbooloo man sama baay bu diglee jibril sax bu ñëwee ma falan ko waaye xamul koy jibril rek ah xamul koy jibril te moo ñàkk a jox cir ku yàlla jox cir yàlla tagg ko ne mooy zi quwa borom kattan ga ba pare ni inda zil arsh makin ca borom arsh ba yàlla ku ca yàlla jox cir la ca grade bi gën a kawe ci malaaka yi mooy jibril mooy chef d'état-major général de tous les malaaka te jibril moomu du wàcc du dul ci ndigalu yàlla am déet wax nañ leen ci darse bi passé ni laylatul qadr yàlla na yàlla dëpp la ñu moom amul benn at ci laylatul qadr lu dul yàlla wàcce ko jibril wàcc kaw suuf daa di ànd ak malaaka yi ñu ànd ak jullit ñi di sabbal yàlla ànd ak jullit ñi di jéggulul jullit ñi ba baa fajar di xar borom boobu ne ne ku yàlla placé la makiin ba pare mu toox mboolem malaaka yi ay ordre am la ñuy topp yàlla lu muy wax jibril la koy wax jibril sant ko mikaayil sant ko israfil sant ko malakul mawt sant ko ñi mu koy sant ñëpp jibril mooy seen kilifa ñëpp moom la ñuy topp mutain ba pare suñu borom ne amiin la ay la ko yàlla jox ndigal du ci wàññi zéro du ci yokk zéro mi ngi noonu du ci wàññi dara du ci yokk dara amiin loolu nag ku mel nii moom la yàlla yónni suñu yonent borom bi nag ñëw ci yonent yi yàlla muhammad moom ci boppam daal dina yéen waa Màkka seen waa ji yéen a ko juddul yéen a ko yar xam ngeen mooy kan seen waa ji xam ngeen ne defut daf ngeen koy ji xam ngeen ne deful maa saahibukum bi majnun ca it jibril moom gis na ko ci gox yu leer ca jibril yonent bi alayhi salaam benn yoon la ko gis ci kaw suuf keroog la ñëw naan zammiluuni zammiluuni mi ngi noonu ba mu ko feeñu ci mool ca xaaru xira doonte ne boobu jëlul woon melokaanu malaakaam ba mu génnee la gën jël melokaanu malaakaam ne ko muhammad an anta rasulullah ila axiri loolu suñu borom mu ne gis na ko ci gisin bu leer te yonent yàlla bi day du koy nëbb kumpa lu ko yàlla waxuloo lépp wax na ko ko loolu moo tax ba bokk julit yii ñu créé gannaaw yonent bi jàpp ne kat lii ak jaamu yàlla la ñaar rek moo mën a am jaamu yàlla la ko baax yonent yàlla bi nag moom da koo xamul woon moo tax waxu ko saxaaba yi wala boog ñu ne déedéet jaamu yàlla la ko baax la yonent ba xamoon na ko waaye da koy nëbb mooy comme li gaa yi tudde tey mbóot li xam ngeen gaa yi luy mbóota mooy ah suñu mbóotu yoon bi bokkul islam amul mbóot de mbóot moom pomp mu dee rek lañ ci xam waaye islam li mu xam mooy mboolem diine yàlla ji dañ ko war a leeral ñëpp am déet ñëpp yem ci yaa ayuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik ah wa in lam tafal fa ma ballaghta risalat ay yonent bi jottali li ma la yónni lépp boo ko deful jottali wuloo gaa yi yonent bi bu doon nëbb dara du nëbb abasa wa tawalla am déet bu doon nëbb dara bu nëbb fokk borom bi di wax naan wa taxsha nas wallahu ahaqu an taxshaahu yaa ngi ragal nit ñi ci yàlla gën a yee ñu ragal ko kon mbokk yonent bi jottali na jottali bu leer nañ amul lenn lu mu dencal kenn comme naka ali ibn abi talib ma nga xam ne mooy gorom ba seede bi lépp lu ko yàlla waxat wax na ko wa ma hu al ghayb bi danin gannaaw ba it xam leen ni lii du waxi cheytaan yeyul cheytaan yi di wax lu mel ne alquran ay yéena maka fi ngeen jëm ñii la daa dof ñii la njabar la waxi cheytaana la dafa rëy kaza wa kaza xanaa xamu leen ne lii du dara lu dal fàttali ñeel mbindaa fan yi fàttali ñeel yahud yi ñeel chrétien yi ñeel ñu weex ñu ñuul yéen ñépp yàlla yónni na ci yéen alquran léegi nag li ci des mooy ku mu neex nga jël liman shaa minkum ne istaqim ku mu neex nga daal di tegi ca la nga xam ne mooy yoonu njub ba al istiqaama waaye nag xam leen ni du leen neex mukk lu dul dafa neex yàlla mi boroom mboole mi mbindaafal wax nañ ko sànq jullit jàngal diini fagarul jéem a dund diini waaye nag tàllal say loxo foo mën a toll di ñaan yàlla saxal la ala siraatil mustaqim ndax kat istiqaama mbokk ki ko am mooy ka ca dund ba deec soo ca defoon juróom-ñaar fukki at avant ngay dee divi nga amoo al istiqaama loolu moo tax ba da ngay xam yoon bi doyul te tege ci yoon bu dewul waaye da ngay ñaan yàlla saxal la ca ba baa yëqin di la dikkal yal na yàlla saxal ñu ala siraatil mustaqim saxal suñuy ndëgg ca siraat bay nekk ca kaw sawara dàbbal ñu ajjana bila xisaab innahu ala kulli shayin qadir wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain ala kulli xaal yàlla def ma nottoo ma woor ba dog bi cinq minutes moo ci des samay baax daal di génn muy ay réglam ngalawaay yi xam leen ne suñu borom mooy nattu ay jaamam nu mu ko neexee yow soxna si yàlla nattu nga dem ba dara desul lu dul dog di waaju jot sa régal génn xamal ne tuyaa bay woor bis boobee am nga ko waaye nag yàlla may na la tamit sant la bis bi da nga koy fay su ko defee fokk nga fay bis bi waaye bul jàpp ne effort bi nga defoon nen na déedéet tuyaa bala ju la yàlla fay waaye nag bis moom il faut nga fay ko amma su may génnee sama zakat sama magasin damay jël pièce par pièce na am loolu de boo ko mënoon mooy gën nga évaluer ko noonu donte ne am na ci ay magasin ak stockage yoo xam ne yombul di ko pièce par pièce sinon zakat yi déwén dina ñëw fekk du jeex su ko defee yu mel noonu dañ koy évaluer nga évaluer ko ci sa ragal yàlla soo mënoon dimbali ko sa moromum commerçant mu xam commerce ñu évaluer ko xool ne magasin bi daal à peu près cent millions mi ngi fi nga basé ci loolu génne zakat zakat boobee ña nga xamee ne nii da nga leen koy jox lañ ca charto mooy xamal ne aajowoo nañu ko su boobaa boo leen ko joxee nga wax leen zakat la ñàkk leen ko wax moo yem lu dul ku la koy séddaleel boo ko joxee ku koy ku koy séddale moom da nga koy xamal ne lii day zakat la séddaleel na ma ko waaye faqiir bi nga yëg ne faqiir la yeyoon na zakat nga jël sa zakat jox ko boo ko ko waxul it yow def nga la nga xam ne nii moom mooy sa waru gar zakatul fitr mu ne ndax zakatul fitr bi su ma koy joxee dama koy wax la may wax ci zakat bu njëkk ba rek lay wax ci zakatul fitr zakatul fitr yi islam dana nañ ko jox masakine yi donc bépp miskin boo xam ne nii jot na nga jël ab ceeb yónnee ko ko dana xam ne lii zakatul fitr la almuhim daal jubluwaay bi mooy fexeel ba jox ko kan ka war a jox ca la nga xam ne mooy sa yéene sell sell ci loolu mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam ah samm mutaa in samma mooy ca foofee mutaa in samma ah ñu koy bañ a jaawale ak summa summa mooy après mi ngi noonu amma samma mooy foofee ay mutaa in samma mooy ku ñuy topp la foofee ay ca place ba ko yàlla saxal muy place malaaka yi kaw asamaan samma amin gannaaw ba nekk mu nekk koo xam ne ku wóor la naam mi ngi noonu waaw waaw jigéen boo xamante ne dafa gis règle dafa règle bi jeex gannaaw trois jours quatre jours mu ñëwaat après mu arrêté waat cinq jours six jours mu ñëwaat ba xam kooku loolu dafay continuer ci benn boor wala ñëw.
ki nga xam ne dafay gis ay règle la muy dog loolu day li ci borom xam-xam yi wax mooy da koy tegale règle am jot na jeex na mu arrêté deux jours mu ñëwaat na arrêté xam ne règle la ñu teg trois jours mu ñëwaat na xam ne arrê- règle la lu dul mu mat quinze jours suñ demee ba début règle bi ak fi mujjee gi sa def mat ne quinze jours su boobaa dañuy jàpp ne lii léegi dootul règle feebar la ku mel noonu day sangu commencé julli commencé woor mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam différence su faqir ak miskin faqir miskin la miskin faqir la loolu ne liñ ko borom xam-xam yi di teqalee mooy faqir moom mooy ki nga xam ne dafa ñàkk waaye du wër di laaj miskin nag mooy ñi nga gis ñooy wër di laaj doomu aadama yi ba boobaa foofu lañ leen di teqalee mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam waaw naam naam naam bismillah naam ndax koo xam ne day nampal waaw koo xam ne day nampal ci du gis deret ah suy koo xam ne day nampal ñu fase ko waaw su boobaa day il faut nampal bi jeex ba mu commencé gisaat ay réglam loolu mooy la nga xam ne mooy tax ñu bëri ñàkk xam da ngay dégg ko mere soxnaam bis buy am doom ma koy fase loolu mbokku njuumte la soo ko nemee fase rek fase ko léegi bis bu amee doom idde bi jeex mais ki am doom nga fase ko da ngay gis ne kooku il faut mu nàmpal il faut mu gis ñetti règle te am ni jigéen ñoo xam ne buñ doon nàmpal ñaari at it duñ gis règle tant que règle yi ñëwul bañ am ñetti règle su boobaa di ngay gis ne un nuñ koy waxee ci idde bi jeexagul mu des koo xam ne nàmpalul koo xam ne nàmpalul dara jotu ko ci zahir dañ koo fase tolloogul foo xam ne passé naa gis règle ay règle am arrêté loole li ci borom xam-xam yi di wax dañ naan day toog un an kooku iddaam un an lay doon ñu boole juróom-ñeenti weer yi jigéen di ëmb ak ñetti weer yi jigéen di gis règle loolee kon mu ngi noonu su ko defee li nga xamee ni ni mooy règle jigéen noonu la bokk na ci ñi gis règle ñetti règle lay doon ak lu mu yàgg-yàgg bokkul ci ñuy gis règle commencé gu ko gu ko gis wala passé na ko ku mel noonu ñetti weer lay toog mi ngi toll ci gis règle mais fas nañ ko règle yi arrêté na ku mel noonu un an yi toog loolu moo ko ni ni mi ngi noonu ala kulli xaal am na question yi fi bind xam naa ñu jël ci benn rek kii mu ne suñu borom dafa wax yonente bi alayhi salaam dama laa fekk nga nekkoon ku réer ma jubal la gannaaw ba mu naan lu tax suñu borom naan sa seen waa ji réerul sànkwul naam mooy yonent bi avant alxuraan di wàcc ci moom suñu borom mu ne waje da ko dool lan yonent bi dafa réeroon xamul ni muy jaamoo yàlla yàlla ci la ko ginde teg ko la siraatul mustaqim léegi nag bi ko yàlla yónnee woon ne def ko fi yonent xamal ko tawxiid xamal ko allaaxira xamal ko loolu mu woo xeetam xeet bi ne ko da ngaa réer suñu borom ne déedéet sànkwul réerul loolee kon bii étape avant mu nekk yonent la deuxième étape bi gannaaw ba mu nekk yonent la yal na yàlla teg ñu ci yoonu njub yal na yàlla musal ñu ci ak réer wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain